toog un bon jour rek euh, ñu dégg benn communiqué boo xam ne dafa jóge ci gouverneur muy wax ne amatul benn oto boo xamante ne bii lëjum la chargé wala fruit boo xam ne bu ñëwee ba jam ñaajo du taxaw foofu dugg marché jam ñaajo wàcce marchandise bi mu yor ba pare ñu di ko door a jël nag ci ay oto yu ndaw à hauteur de quatre tonnes ñu di ko transporter sur le reste de Dakar quoi léegi nag euh, ñun ñu constaté ni bala ngay jël benn décision mais war ngaa mën a ñëw ak autorité boo mënti doon ñëw ba toog ak ñi nga xam ne les principaux concernés nga wàcce sa bopp ñëw toog ak ñoom waxtaan ñoom ba ñu nga xam ñoom li ñuy dund seen bagage li mu nang ak li mu nangu li leen arrangé ak lu leen arrangé wul parce que ñun ñëpp ñoo bokk ñoo bokk lépp dañoo war a yëgante àndandoo joxante cër les autorités ñu ngi leen di ñaax pour ñuy wàcc bala ñooy jël yenn décisions yi ñuy wàcc sur le terrain un tudd nañ ci chambre de commerce tudd nañ ci Euh, syndicat transporteur mais syndicat transporteur man xam naa ne ñoom dañuy yëngatu pour intérêt transporteurs yi mais ñun ñi nga xamante ne bii ñoo ñu représenté foofu ñuy wax ne ñoom suñuy représentant la ñu ñooñu ñun reconnaître lu leen bagage yi nga xamante ne bii dañ koy yóbbu jam ñaajo gis nga njogaan njogaan presque ñun ñëpp ci loolu la ñuy dund maanaam bi nga xamante ne bii da ngay joué par le temps boo yéexee rek day day day yàqu mais xoolal caaro yi fi mu nekk li ko wër tey waa Géejawaay dañuy ñëw fii waa Kër Massar dañuy ñëw fii fii ba Tëngéej horaire yaa ngi fenn fu nekk dafa dem waa imaginer nag léegi bu ñu jëlee nag marchandise yooyu yóbbu ko fële yóbbu ko jam ñaajo léegi amatuñu boobu nit ñi nit ñi nit ñi nekkatuñu foofu noonu mais mais nan la ñuy def kon dèjà ñoom ñu ngi taxaw bëgg nañoo rey famille yooyu nga xamante ne bi amuñu doole ñun ñi nga xam ne ñu ngi doon taaba taaba nekk ci lii pendant trente ans quarante ans bëgg na ñoo rey léegi buñu ta jógee béykat yi nekk ci àll bi nag